Koña numéro 2 mooy bërewaat noonu mi noonu booy bi mi bëreel nag benn tali la dëkk de parce que kaw dóor ci suuf bul gaañ ay bàyyi jili tarkinda sa waajaa ngi nii ana jili kolobaan dimanche bi di ñëw ayca Thiaka Faye ngi noonu di bëre deuxième combat poids lourd Kogna 2 léegi yóbbu na top 5 booy bi dëkk Bentali tur bi laay fàtte Thiaka day ngay foq ma ne ko Thiaka day ngay foq ndeysaan mooy Thiaka Faye mooy biram kunkung mooy biis bi tur bari international la ca caakaa ngi noonu ci poids lourd la ndeysaan lit baa ngi noonu ma ngay neex ma ngay neex ba dugg ci peex ndeysaan dudoo ngi noonu di jaayu dudu saane ngi noonu di ndeysaan ñaa nga noona ndeysaan dara xewagul ba tey Caaka Faye combat bi am na dégloonte min njool mooy bëre ci côté bi Caaka Faye nga ca combat ba ba mbër yaa ngi wàññeeku de léegi mu neex de ndeysaan dara xewagul Caaka Faye moom lañ jàkkaar ña nga ca combat waaw waaw booba plaqué rey na <laughs> kii da koo daan mu wëlbati kuy bàkku <laughs> eh. ay la la la caakaan ca combat ba min njool ci côté bi jëlal lars ndeysaan min njool ci côté bi caaga fay ca côté be min njool moo féete à droite caaga fay côté bi moom tamit combat poids lourd yaa ngi dawandoo attention caaka caaka ak booy ba min njool ca côté bële attention caaka da koy génne wala booy bi day bañ caaka génne na ko caaka génne na ko avertissement booy bi am na benn avertissement caaka taxaw na di ko déglu libidoor mooy bële na la ca ginnaaw Libidor a ngi bëre Caaka Faye ngi bëre Min jool mi ngi bëre Libidor daa mel ne Biram Bisin lay bëreel de hee eh, les combats choc la bee neex na Libidor ak Biram Bisin boobu combat choc la tamit ah combat choc yaa ngi commencé kii de jëlal ma ko dafa daan ba pare daanu na yéesi ci géew bi lànk na nee na du jóg caaka mitaana libidoor arbitre ba àtte na kombaam min moom tamit ci côté bi sa waay daanu na yési de lànk na na du jóg ma ngay door ka mu àndal ndeysaan min jool ci côté bi biram bisin seen ak libidoor bu Grand Yoff libidoor bu Kayar min joola tent bopp bi noonu mooy tàpp noonu waa ji arbitre atte baa ngi wax ak ñoom biram bi libidoor libidoor bu Grand Yoff à gauche wala bu Kayar biram bisin à biram bisin libidoor combat caaka fay bi ñëwaat na ginnaaw ba mi-temps ndeysaan mbir maa ngay commencé yëngu di neex arbe sifle na jàpp tànk ba rëcc na ndeysaan waaw waaw loolu de Balla Gaye 2 la gonek Double Less gi mbokkam yaayu Sa Thiès ak Liiru ndeysaan Biram Bisin ak Libidoor dara xewagul caaka ak booy bi tamit dara xewagul combat yooyu nekk ci géew bi arbitre attana avertissement Birame Mbissine benn Birame am na benn avertissement Thiaka Faye combat mbét jeexagul avertissement Thiaka Faye avertissement booy bi ñaar caaka benn arbitre sifflé na calcul ba day bari bu ñu yegsee fii boo yegg see huitième de finale calcul bi bari Birame Mbissine Libidor ndeysaan waaw waaw xoolal ma moom kee jigéen góor la ca géwéle xool waaw waaw ndeysaan laa <laughs> ilaaha illallaah ndeysaan ak libidoor jeexagul seen combat mbaa du dem avertissement boo saaganu avertissement lay jeexe de Libidor Biram Mbissine arbitre altena mi-temps ñëwal caaka baare nañ ko baare nañ kay jox nañ caaka victoire bi nañ caaka victoire bi mu des Biram bisin ak Libidor Biram Mbissine moo nekk à Libidor agos jàpp nañ tànku Mbinjool tànku Mbinjool jàpp nañ ko dañ koy daan mbot na Mbinjool mot na ko rëcc na na ko mu bañ Mbinjool laa ilaaha illallaah Mbinjool a ngay bëre caaka ngay bëre biram bisin ma ngay bëre xale ya rakkaaju nan ndeysaan 5 millions du caaxaan mënta yomb ku daan génn ci compétition bi dootoo bokk moo tax ku nekk da ngay bëgg a ndeysaan ñaari combat ngi noonu ci géew bi ñoom ñooy tëj poids lourd yi après poids léger yi ñëwaat Mindiol à gauche ci côté bi beneen côté bële Libidor ak birambi Mbissine Sène ndeysaan waaw waaw arbitre atte na fee avertissement benn Biram Bisin deux deux la ak un jëlal larsu kombaay ndeysaan arbitre sifle waat na seen kumpaay daw di romb noonu bu fan gol tappe ndeysaan min njool kombaam jeexagul mi ngi nii mooy première bi fële ca ginnaaw li bi a fay bëre attention li bi door dara xewagul jàpp na tànk ba biram bisin jàpp na ko rëcc na li laay laay la laa ña ngay bëre de jàppaat na tànk ba fàq ko dugal na ko ca suuf arbitre àndul njatt na ko libidoor njatt na biram bisin libidoor njatt na biram bisin da koy daan wala biram bisin nelaw na ca tànk ba libidoor ak biram bisin fan la mujj da koy daan bëgg naa toog ca beneen tànk ba kal ko libidoor ak biram bisin jël day am libidoor njattaat na ko bopp ba la a biram mbisin bañ na libidoor combat bang ca suuf boo ko dëjee mu toog de libidoor boo ko dëjee du toog libidoor ak biram mbisin jeexagul oh li daan na ko libidoor daan na biram mbisin seen ay libidoor nee na daan na ko trois